ñu ànd sant yàlla mi ñu may mébét bi ñu doon am ñu agsi fii di tey gannaaw bu nu nuyoo ñëpp dama bëgg ñëpp nag bu ma ko waxee mooy ñëpp xam ne teg nañ leen bët ñi ma jiitu ci kàddu bari na ñu ñu lim. waaye ñi ñu limul it nañu xam ne seen taxawaay yëg nañ ko mbir mi dañu ko bëggee nii mooy li ñuy def lépp mu am fu mu tàmbalee am fu mu jaar am fu mu jëm te lenn lu ci nekk nag ak bisam lenn lu ci nekk ak waxtoom yàggul dara dama nekkoon ci barab bu ñuy wax Moréa balaa ma fay bàyyi ko ki jiite sénégalais yi invité ma man ak yeneen sénégalais mu am lu fa xew dafa am doom moom bu am ñaari at ak genn wàll tudd faatu mu xamal ma ni beneen doomam bu bokk bàyyi ak kooku am fukki at ak ñaar tudd fanta dana ñëw fekke ci reer ba fanta duggsee sone bunt ba tijji faatu dafa tëbe ci canapé bi mu nekkoon bay bëgg a daw song fànq ñoo bokk bàyyi laxasu ko di boole di ko fóon ak di ko raay jàpp ci loxoom moom mi am ñaari at ak genn wàll yóbbu ko ba ci ay fowukaayam toog ak moom may se ma leen di seetlu bi waxtaan bi tàmbalee sunu mbokk sénégalais fa nekkoon laaj ma ci fal askan wi man leen est-ce que seetlu ngeen Fatou Fanta man leen ñun ñëpp ñëw nañ fi fekk fi Fatou ku ne nuyu na ko jéem a neexal def ay grimace way Fatou nangam nangam faalewu ci kenn waaye bi Fanta duggee wane na ni am na ak bëgg ci moom wane na ni am na Pastef ci moom wane na ni am na lu ne ci moom mu feeñal ko ndax dafa gis boppam ci Fanta fal askan wi mooy Fanta askan wi mooy Fatou maanaam bu fal askan wi nekkee Fanta te askan wi di Fatou askan wi dina wane ci fal askan wi li faatu wone woon ci Fanta dañ ne lu waay di wuyoo da koy nuru mais dafa am lu ko gën lu waay di nuroo da ko wa wuyoo da ko war a doon mooy fal askan wi bi muy wax. bi ñuy wax wërte yem ci làmmiñ wërte yem ci ngistal lu nu war a jëfe la moo waral bi ñu waree def jataay bi ñu waajal ko tànn fexe ba région bu nekk mu am koo xam ne mën na ko wuyoo fii fexe ba departement bu nekk mu am ko ko mën a wuyoo fii ñu fexe ba am kuréel bu ne ci askan wi bu ne am ko ko mën a wuyoo fii bu dul woon li muy guddi ni ñu joxe parole Jules joxe ko parole Dame Diagne noonu lañ ko mën a joxe secteur par secteur jox ko kilifa diine yi jox ko délégué de quartier yi jox ko képp kuy artisan waa chambre de commerce ñi ngi fi am na fi ñoo xam ne ñoom ñoo représenté samb de métiers am na ñoo xamante ni comme industriel la am na ñoo xam ne ay opérateur économique la ñu am na ñoo xam ne ay taalibe la am na ñoo xam ne ay handicapé la ñu am na ñoo xam ne ay femme de développement la am na ñoo xamante ni ci société civile bi lañ nekk am na ñoo xam ne ay tailleur la ñu ay menuisier ay mason jakarta ak keneen ku manti doon ay chauffeur taxi chauffeur camion ñeneen ak ñeneen maanaam pàcc yi nekk ci réew mi yëpp fexe nañu ba kenn ku ci nekk ñu invité la assuré wu nga di nga teew ci jataay ngir lan ngir won leen ni lii ñuy ubbi tey ma ànd ko ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk tey mouvement bii di fal askan wi a ah, lii ñuy ubbi tey ñoom ñoo ko moom ah, fii du nuroo ak permanence su parti fii du doon barab boo xam ne dafa am kilifa yu ko moom def fa lépp la fa war a ne nit ñi ñëw di ko seetaan fii li muy doon askan wi moo ko koy def kon soo duggee ci biir kër gi boo duggee ci bureau yi doo fa fekk dara dara doo ko fa fekk mooy kër gaa ngi ni ñi ko moom ñooy defar kër gi ñi ko moom ñooy askan wi ñi ko moom tey am ay activités yu farataw yu ñu am ci biir dëkk bi ñoom ñoo fiy yëngatu certes dina am ci bureau yi fi ne barab yoo xam ne c'est pour organiser le mouvement c'est pour coordonner les activités c'est pour planifier les actions mais li ëpp ci li ñuy war a def fii mooy li waa askan wi di soxla te yenn saa ñu am soxla barab bu ñu ko defee te xëy na du ñu am lu ñu ko loué. xay na lu ñu am lu ñu fayee ñu soxla barab bu ñu ko fi defee li nga xam daal moo fi dul am mooy baal ak tànn béer ak lu xeetoog loolu rek maanaam lépp lu faratawu rek te nit ñi mu doon njariñ ci ñoom mën na fee am bu boobaa ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk bu dee côté jigéen ñi la suñu borom dogal na ngeen am présidente boo xam ne yaakaar naa ni waxuma Thiès mais Sénégal yëpp xam nañ ko muy la présidente Maymouna Dieng donc lu jëm ci organiser activité wu jigéen ñi moom ak ñi muy nar a àndal ci biir loolu danañu seet nu ñu koy tëralee ba jigéen ñi ci am soxla di ko mën a jariñoo te mu leen di jariñ bu dee ndaw ñi la am nañu présidente bu ñuy wax Khady Bintou Gaye bu boobaa moom ak ñi muy àndal ci biir kuréelu jeunes yooyu danañu organiser wu pour seet nan la ñuy fexe ba jeunes yi di mën a am accès ci barab bi di ko mën a jariñoo ci anam yi mu gën a rafet muy kuréelu mag ñi muy kuréel yeneen yépp yi nga xamante ni dañoo màndargaal askan wi kenn ku ci nekk maanaam boo amee soxla ci barab bi dina am ku la mën a wuyu koo xam ne boo dikkee incha allah di nga ko fi fekk nga mën a wax ak moom mu seet naka lay fexe ba li la yitteel nga mën koo def ci biir kër gi mu des lan mu des lan mooy fañ jëm yéen ñëpp xam ngeen ni dafa am lu ñu miine woon ñu teg ba mu yàgg gis ñu ne ci teg kenn ku ci nekk di jiiñ loolu lu ne dafa fekk soo nekkee ci am réew nekkandoo fa ak nit ñoo xam ne ah dañu wuute nga am noo daan defee loo xam ne ay la yéwén dara lalu ko lu dul bëgg leen billaahi wallaahi wa taala dara lalu ko dara mus ko lal ak lu ma mas a wax ak lu ma mas a def ci Sénégal dara lalu ko lu dul bëgg leen nga xam ne li ñu bëgg mooy nit ñi comprendre que noonu nga xam ne dañ ko daan defee mais dañ ko daan def xëy na buñ daan toog di seetaan ci campagne électorale ñun lañ doon ëpp lu ñu doon seetaan waaye bu watee jotee ñun ñooy gën a néewle ay kàddu am déet kon nga xam ne Sénégal dafa am nu mu tëddee sénégalais bëggul fitna loolu ñu jàngat la nous avons donc gardé intact nos convictions nous avons même gardé intacte suñu capacité d'indignation par rapport à un certain nombre de choses yuy fa xew yenn saa yi mais nous avons changé de mode de restitution de ces convictions ngir lan ngir fexe ba dëppoo ak askan wi nga xam ne ñun moom la ñu nekkal Sénégal dafa am ñaari camp yu ñu miin ci wàllu politique ñu leen di tudde kujje gi ak ñi ne ci nguur kujje gi ak ñi ne ci nguur lañ leen di tuddee ñun bokkuñu ci kujje gi bokkuñu ci nguur gi ci askan wi lañ bokk maanaam tey su fekkee ne dafa am xuloo ay xeex ay ŋaayoo yu nit ñi miin ci diggante ñi féete ci nguur gi ak ñi féete ci kujje gi ñun bokkuñu ci loolu te yaakaar naa ni ragal taxul yaakaar naa ni bëgg bokk ci nguur taxul ndax fi nu jaar ak fañ daan dem ah lépp nit ñi jot nañ caa xame ni ñun suñu engagement ci wàllu yooyu yëpp mat na ñun kenn mësuñu jiitu ci manifestation néew na ku mën a wax ni mooma ëpp guddi yu mu fanaan ci kaso maanaam ci loo xam ne engagement la bu jëm ci senegal waaye àdduna day dox te tey li Sénégal laaj ci loolu lañ ne mooy lan mooy jublu ci fal ba Sénégal de Sénégal ba tey mosuñu fal kenn Senghor tubaab yee doon dem moo tax mu ñëw Abdou Diouf Senghor a doon dem mu ñëw Abdoulaye Wade Abdou doon dem moo tax mu ñëw Macky Sall doyal ci Abdoulaye Wade moo tax mu ñëw kon falaguñu kenn dañuy folli rek boobu ba léegi suñu bëggee mu dox nag dañuy fal moo waral fal mais fal fal askan wi ci boppam ndax ñépp constaté nañ ne lu bari ci biir askanu Sénégal dañoo téye léegi seeni yoxo ci wàllu politique ñii bindu wuñu bindu nañu waaye wotewuñ ngir lan dañoo gisul seen bopp ci mbir yi ngir dañuy faatu gis ñu fànta kon li nga xam ne fa lañ mooy lépp loo xam ne xiiroo la woon ak ŋaayoo ñu tege ko nële